Ah, mbokki téléspectateurs yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ah, ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbokk téléspectateur u Thiénaba TV jiital ci nuyoo bi le xalif général Baye seriñ Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ah, ak lépp lu mu jaboote ci moom la ñuy jël nuyoob xalif généraux yi nekk ci réew mi teg ko ci loxoom ak nuyoob njabootam Baye Serigne Assane Seck ci moom la ñuy jaar nuyu sëriñ Cheikhou Amadou Seck nuyu sëriñ Alassane Niane Seck chef de village waaye nuyu monsieur Babacar Wade ak monsieur le maire Talla Diagne euh, bu Thiénaba nuyu sëriñ Pape Seck Murtada bu sëriñ ma dikke xalifaam ak xalifaam euh, ak njabootu sëriñ ma dikke sëriñ Talla Seck imaamu ratib bu Thiénaba Kajoor ak Baye Talla Diagne euh, bu chef de village bu Thiénaba Kajoor ñu ngi taxaw fii ci place Mamadou Dia ci mairie bu Thiès Euh, ci conférence bi nga xam ne Baye Alpha Mamadou Seck bu Serigne Madické Seck borom yàlla nee na moom la lay def tey nag ci 2023 bi euh, mu nekk septième édition euh, ñu koy def fii ci place Mamadou Dia macha allah mu nekk conférence boo xam ne bu jotee rek fu nekk la nit di jógee taalibe yi mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi macha allah ñëpp dinañ ñëw fii wàcc ak njabootu Serigne Madické Seck àndandoo ak njabootu maam Ahmadou Ndack àndandoo ak Baye Cheikhou Thiénaba waaye àndandoo ak taalibe Cheikhou Thiénaba yëpp ah, ñu daal di yendoo fee tagg Seydina Mouhamed yendu fee sikar baatu laa ilaaha illallah waaye yendu fee fàttali joxe ay bind Serigne Pape Seck Murtada moom mooy def waxtaan wi ah, at bu jot kon ren tamit ñu ngi xaaraat ren macha allah mu ñëw ànd ak ñun ci waxtaan wi waaye conférence bi tey 2023 ah, bi dañ ko parrainé jàmbaari Cheikhou Thiénaba muy kan muy Baye Moussa Ndongo Baye Moussa Ndongo mu Cheikhou Thiénaba Baye Moussa Ndongo bu Baye Alpha Mamadou Seck waaye Baye Moussa Ndongo euh, bu euh, bu Maam Ahmadou Ndaak Seck ci liggéey bu am solo ak bàyyi xel bu mu bàyyi woon njabootu Cheikhou Thiénaba Baye Moussa Ndongo la ñuy delloo njukkal ci conférence 2023 bi marraine bi mooy kan mooy madame Wade euh, Ndeye Binta Dieye mi nga xamee ni doom la ci alaaji Papa Dieye mu sëriñ ma dikka Seck borom yàlla nee na macha allah Ah, ñooñu ñëpp délégation yooyu yëpp dinañ leen xaar ah, ci kanam ñu wàcc si fii ci biir eh, Thiès waaye eh, conférence bi dina am ñu ci rendre hommage kan ak kan Serigne Babacar mbay dëkk ca Dakar doon wëllëre Serigne Madické Seck waaye nekk taalibe ci kër gi Baye Mor Diop bu njarnu nekkoon wëllëre moom tamit dinañ ko ci rendre hommage Baye Mbaye Thiaw ah, bu kër ma silla dinañ ko ci rendre hommage Serigne Talla Gueye bu a Gueye dinañ ko ci rendre hommage Baye Saliou Cissé bu kër Ndiaga Sarr dinañ ko ci rendre hommage euh, Ousseynou Gueye euh, bu kër ma fay euh, macha allah dinañ ko ci rendre hommage ak Serigne Matar Ndiaye bu Thiès ñooñu lañ ci ñaanal ak mbokk yi nga xamee ni ñoo ko daan fekke te fekke ko ren ñu ñaanal leen rek yàlla dugal leen àjjana te ñu dëkk fa ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci kanam tuuti dinañu recevoir délégation yii ngeen seetaan ko muy Serigne. Euh, Serigne Badara Niang euh, bu Kébémer nekk intellectuel waaye nekk kilifa nekk taalibe Cheikhou Thiénaba taalibe Serigne Madika Seck dina yëkkati kàddu ci kanam tuuti ci ziara bi waaye dinañ gis daayira Thiénaba Kajoor ndax Thiénaba Kajoor kenn desu fa daayira ba euh, ànd nañu ak Baye Dame Seck ñu ñëw rek macha allah teewee li nga xamee ni mooy conférence bi jiitu Serigne Pape Seck Mourtada waa Ngomeen ni kenn desul ñoom tamit délégation bu am solo lañu ñëwee fii. ci Thiès waa kër Ndiaga Sarr ak waa Bulfa ak waa ak waa Guyaar ñoom ñëpp macha allah ñëw nañu ànd ak Baye Serigne Isaaxa ñang ñëw fii ci conférence bi ak waa kër Mamour Pouye bi nga xamee ne macha allah kër Mamour ak Thiénaba benn lañ mag ci noonu la ñu àndee woon démb ak barki démb ñëw nañ def délégation bu amaam solo ñëw ci conférence bi waa Fass Kofi Oustaz Gora Kébé moom moo leen jiite macha allah mu nekk loo xam ne lu amaam solo délégation yi yëpp. dinañ leen présenter incha allah waaye conférence bi daal euh, commencé na fii euh, ci euh, place Mamadou Dia ñu ànd ak équipe bu Thiénaba TV bu takku équipe boo xam ni liggéey bu am solo lay def Talla Sarr la ñu àndal ci caméra bi ànd nag Ablaye Ndaw ci beneen caméra waaye Moussa Ndiame Gueye moo ànd ak yéen ci reportage bi joxante dig daje ci kanam incha allah lépp loo xam ne xew na fi dinañ leen ko dégtal muy mbégte moo xam ne dañ koy partagé. ci kanam tuuti incha allah ngeen ànd ak Thiénaba TV télévision maam Ahmadou Ndak Seck. Baye Alpha ndax moom ba sëñ bi di ñëw Dakaaru bu ñëwee sama kër la ñuy dal mu neex ma lool ba léegi xale yi léegi rek laay wax sëñ Ibrahima naan ko dégg naa la kër gi <laughs> foofu moom mooy këru sëñ Thiénaba na ko Kébémer sama kër maam màgget Fall nekke woon nekk kër baay alfa ku ko daan seet Kébémer boo ñëwee altine ak bés bu mu nekk rek danaan la demal kër màgget Fall ba léegi ku jóge jógee ba Kajoor foofa ngay ñëw booy dugg ànd ak ami cuun waa kër ga kër maam piti mu neex ñu lool damay wax yenn saa yi naan ñun duñu taalibe ci kër gi ñun danoo bokk ci kër gi ndax nag loolu ca maam ya la ndax sa maam awa ñang ma jur sama maam aw ndaw faal ma jur sama yaay foofu mooy seen cosaan maam muttu fa moo ànd nag sëñ bu sëñ bu mag bi góor gu mag kon loolu lépp di loo xam ne daf ñuy neex buñ koy fàttaliku looloo tax ah lii bàyyi Alpha di woote Thiès fu mu ñu fekk rek bu nu fekkul bitim réew danañ fexe ba yegsi fi même bu nuy ñëw ñu gis ñu rek sunu xol sedd ñu delluwaat a ah, ñuy ñaan yàlla nag bés bi dem ba weesu fi mu toll maa ngi naan CDD ak CRD yëpp war na ci am bu jubatee ñu mën koo def xam ni bis bi ci cees amul bés bu ko fi ëpp kon loolu wax dëgg Baye Alpha liggéey na ko a ah, ku ne xam na ni Baye Alpha Thiès moom moo moo ko yore moo ko yore ci turu waa kër sëñ ba kon nag loolu ñoo ngi ko ci yokk di ko di ko sant di ko gërëm di ko jaajëfal di ñaan yàlla li mu taxawee yoonu sëñ ba yàlla gën ko cee defal ay xéwal defal ñu ko ñun ñi di taalibe kër gi ah, wax dëgg kontaan naa maa ngi laajte léegi ñu ni ma sëñ Pape mi ngi ci yoon wi ak délégation waa kër Thiénaba Thiénaba Bawol Kajoor ak Thiénaba gu ne ba ci senegaal gi yépp kon vraiment waaw ñëpp a ngi ci yoon kon bis bi moom wax dëgg bisu lislaam la bisu diine la ñoo ngi ñaan yàlla luñ fi ñaan yàlla nangu ko ci darajey weeru koor wi ñu nekk kon foofu laa yem jërëjëf merci ah ci sunu mbokk mii ci sunu xarit fa tabaarakallaahu muy sëriñ Badara Ñang ah, yaakaar naa sañ Jàmme su ma nee sëñ Badara Ñang ah, ku dëkk Kébémer dina ko xam muy kenn ci sëriñ Madike bi mu nekkee Kébémer di jàng mook Abdou Ñaa ah, bu vacances daan jot dañ leen yóbbu ci sëriñ Alpha Mamadou waaye nee na bu ñëwee sëñ Alpha sëñ Alpha ñaar ñi ëllëg ñooy samay tubaab loolu daan wax booba fa la ñuy nekk ndeysaan nekk ci tool yi dugg ci àll bi fu ne waaye sëñ ma alpha bàyyi woon leen xel daal ni ñii ëllëg ñooy samay tubaab ba tey jii yaakaar naan tey ku dem ndakaar ku ni Badara Niang société ba mu fa yor macha allah ay nit ñu bari di fa jaar di liggéey kenn ku ne xam na ko tey jii Abdou Niang hôpital dalal jàmm fa tabaarakallaahu cër ba mu fa am ku ne xam na ko sëñ Ibrahima yi rek soxnaam bi mu feebaree. daanaka ci moom la nopp euh, fa la nekk ba noppalu daanaka léppam moo ko yoroon Badara Ñang mii doy na sëkk ndam rek ñu ni sëñ Madické radiyallahu taala anhu bi mu demee ba war a noppalu maa ngi moom këram la ñu nekkoon te avant loolu am na lu ko jiitu sëñ ma Madické buy xool yaramam kër yam mën a nekk Dakar bari na waaye bu ñëwee kër Badara Ñang lay nekk boo waxee mu ni Badara jikkoy taalibe la yor moo tax mu neex ma fa tabaarakallaahu këram la nekk ba ni mu wuyjee boromam kon loolu jikko ji mu xool ci moom fa tabaarakallaahu ba mu doy ko ba tax mu mën a ba wuy ji boromam loolu rek fa tabaarakallaahu ak kàddu ya sëñ Alpha waxoon ni ñii ëllëg ñooy samay tubaab ci ñoom ngay dem loolu rek daa doy sëkk firnde kon fa sañ sëñ Badara tey jii xat na waaye mu def jóge Dakar ñëw daan ni fi ma war a dem daa bëri waaye dama ni bala maa delluwaat dem Dakar dem ci yeneen conférence naa ñëw jaajëfal la xamal ni bis bi ñoo ko bokk ndax yàlla def na man muy sama xarit lool ma bëgg ko mu bëgg ma lool te lii fu nekk da koy jàll ci àddu fu nekk dafay jàll ci àdduna bi man su ma ñëwee dakaar maa ngi ñëw këram mën nañ fa am fukki fan te loolu lépp na ko waral mooy ak yaatoom ak yaatum soxnaam Madika Njaay mii xam na ci dara dana ma kër Badara Ñang boo fa duggee bu nu la waxee toogal doo toog ndax macha allah kër ga damu rafete waaye buñ la waxee kii moomam kër gi sax da nga naan déedéet loolu Aliou mi mën na ci seede xam nga loolu lu ko waral. mooy jikko ja nga xam ne si sëñ alfa defoon na ko ak taalibe gi nga xam ne si macha allah ma nga ca moom looloo ko waral tey jii boo demee foofu di nga fa gis waa kër maam Sëriñ Touba fu mu toll ñu ngi ñëw waa kër maam Alaaji Malick fu mu toll ñu ngi ñëw waa kër Sëriñ ba fu mu toll ñu ngi ñëw loolu lépp li ko waral mooy seen waajur moo leen séqoon meloon noonu ci Touba meloon noonu ci ba fa tabaarakallaahu tey jii noonu lay doxale gàmmu ko jor bu jotee lettre yi jëm ci wàllu état bi lépp moo koy bind loolu lépp li ko waral mooy nangoom fa tabarak la ak ab Pastef waaye nekk kenn ci xaritu Serigne Madické Junior kon fa tabarakallah sañ Badara kontaan nañ suñ xol sedd na lii nga def ni rëy na ci ñun lool waaye nag yàlla nañ sa fajagu aajo àdduna ak alaaxira ndax ci weeru koor lañu nekk te dañ ni nit ki buy dox lu baax buy seetu ko feebar fa tabarakallah baa muy wuy ji yàlla jéego bu mu jéego rek yàlla da koy bindal tiyaaba waaye yëkkatil ko ay daraja te fa tabaarakallaahu ci loolu nga nekk bi nga jógee Dakar jënd sa essence wala sa gaz wala jéego ñëw fa tabaarakallaahu man zaahir yi yëkkati ay taraanga jox ñu ko waaye ay xéewal ak ay gara dëgg la lay jural ëllëg te léeg-léeg nit dina def loo xam ne baax da koy xeeb sax waaye yàlla na yeex day dugg bàmmeel suñu borom fay ko mu ne lii mënuma ko woon lii liggéeyu ma ko woon kon fa tabaarakallaa suñu badara kontaan na yal yàlla gën laa jàppale yal yàlla gën laa taxaw fa tabaarakallaa bu ñoom sañ Pape ñëwee ak waa tund yëpp dinañ leen xamal ni teel ngaa ñëw fa tabaarakallaa dalal gan ñi kàddu laa ci doon sànni asalaamaaleykum wa rahmatullah maman jàmbaar ja suñu waajur fa mu nekkoon démb ak barke démb luñ ca mën dolli ci diggam ak suñ Madické dañ ko cay dolli waaye kenn du ko wàññi muy nag jàpp nañ lu weesu bisu tey bii est-ce que nit mënati leen la defal lu dàq lii mu ni mu ni lu weesu bisu tey bii ndax kenn mënati naa jëf jëf ju leen dàqal ji wala jëf ju gën a rëy ji ndax ñoom kenn nettaliwu leen seen diggante seen baay ak suñu ma dikkee bi mu koy dund ñoom ñëpp ku ca ne fekk na sam xel ñor xomb ba loo gis xam ko loo dégg doo ko fàtte te yàlla mënu leen a nattu seen jëflante ak Baye Ndikane mu nekk lu ñu leen di nettali mais nee na ñoom diggante Baye Babacar Mbaye ak seen médiqué nekkul leen kenn naan seen baay li la seqoon wàcc na kenn du leen wax ne seen baay li la seqoon suñu médiqué mu ni ma doy na rek loolu ma wax mu ni ma doy na ci wax nee na ko toll ni suñu médiqué àddina bépp soxla ko chaque année mu jàpp benn bis tëj daara ja wan Thiénaba Kajoor ginnaaw ànd ak ko yaakaar ñu ko foo jëm. mu ni damay yendule Babacar mbay nee na loolu nekk leen di nettali ndax ñi daan organiser ñoom ñii ca la nu bokkoon ñi daan taxawu bernde yaag lépp loola ca la bokkoon. nee na loolu rek bu fi suñu médicaux yemoon ak seen bàyyi doy na sëkk kon nee na bàyyi dimbali nga leen ndax ñoom ñëpp buñ doon ab taal buy giim nee na sa jotaay bii ak lii nga tudde Baye Babacar di ko ci rendre hommage nee na bu doon ab taal la xambaan nga ko ba mu jëri jëri te ñoom ñëpp. nee na ñi ñëw ak ñi ñëwul moo leen toogal buñ fi jógee ku ne di nga xoolaat sa bopp soññiwaat sa bopp ci nan ngay war a doxe ci sa diggante ak waa kër Serigne Madicke Seck nee na góor ñi jigéen ñi seen waajur yi ñëpp tey fu ci waay nekk sa jëmm fa waaye may se ne na seen xolo nga fii nee nag lim lay wax moo ngi koy wax ci kàddu Ablaye nee na toogaay bi mooy toogaay Ablaye kàddoom yi mooy kàddu Ablaye nee na ñu ngi yeesal kóllëre gi ak jaayante gi ci seen diggante ak yéen ñi fi sëñ Madické Seck bàyyi bàyyi Babacar mbay nag comme doon waxkat ku koy waxal bu guddee dañu naan ci yow la waaye du ki la wax lool kon may sa nee na nga xam ne bëgg nañu waaye kontaan nañu nee na nag lii mu teg sa loxo bu sañoon day ñëw ne la bàyyal fa baas bi yëpp ñaata la nga ni ko temps mu fay ko waaye nag na nga xam ne li ñu la jox dañoo feeñal seen yéene waaye nee na Ablaye nee na mu ngi lay gërëm mu ngi lay sant moo njabootu Baye Babacar mbay yëpp benn baat dañuy wax ni wax na solo may sa yow it yaa yàlla yàlla guddal fan yi wéral seen i cër barke Baye Babacar yàlla na gën a wàcc ci yéen wërsëgam darajaam lépp yàlla na gën a wàcc ci yéen boo àggee nga ni Ablaye bég nañu kontaan nañu waaye sunu yaakaar dolli ko nu waaye sunu xel gën naa dal macha allah. ñaanal leen. yi moom jël na jotaay bi incha allah dina ko partage ak àddina bi yëpp waaw mu ni liñ ciy sànni. gannaaw ba leen nuyu leen njabootu Baye Babacar Mbaye. maa ngi nuyu sa kilifa Ablaye. ak sa rakk yëpp. nag. tabaarakallaahu. ak soxna yu baax yi nga àndal. soxna Fatou Mbaye sunu jigéen. ñoo ngi la ziyaara. soxna Ayda. ak ñi ngeen ko seqal ñëpp. soxna Ndoye moom du moo ci dàq soxna ummi soxna ummi moom dafa niroon Marème Faye Sall sax nee na kontaan nañu lool nee na lii li muy neex neex am na lu ko ëpp doole kaamil bi kaamil bi wàcce nañ ko Canaba Kajoor wàcce nañ ko Canaba Kajoor yéena ci bàyyi Babacar Mbaye yéena ci bàyyi Babacar ci suñu bàyyi Mor Diop bàyyi Saliou Cissé ak sama xarit Matar Ndiaye ma xam ni loolu yéen moo leen lépp ci yàlla mooy tuyaaba ji sëñ Babacar Baye Mor Diop Baye Saliou Makhtar Ndiaye fa mu ne kaami bee ndàq lépp mooy tuyaaba ji incha allah daanu si jot benn ko jàngee Canaba Kajoor tur yëpp laa jox mut sàmb ni ko ñii ñooy rendre hommage yi parrain bi parrain bi Baye Moussa Ndongo génn àdduna ñu jël turam. ñii ñooy man ñii ñooy rendre hommage. ñii ñooy rendre hommage. jëlal seen tur ñoom ñëpp jëlal seen tur ñoom ñëpp. nga yéene leen ci kaamil bi. tabaarakallaahu. loola nag. loola moo am solo. Ah, Maysa mii. Maysa mii. nekk kenn ci kër Sëriñ Madike. am ca taxawaay lool. weeru koor su jotee. lépp lu jëm ci ndogu yi daf koy jox soxna Xadi Booy mu jox ko sëñ Pape Seck yàlla yàlla gën laa taxaw baay Babacar Mbay ku yaru la woon ku yiw waaye ku gëm sëriñ bi doy na exemple ah, sëñ Madike bi mu nekkee hôpital. bi mu nekkee hôpital. dañuy bëgguma kenn xam ni maa ngi fi. dañuy bëgguma kenn xam ni maa ngi fi. ndax suñ ko xamee. ndax suñ ko xamee. du ma noppalu. waaye mu ne ma wool ma Babacar. waaye Babacar moom wool ma ko. bi Babacar Mbaye ñëwee. bàyyi Babacar Mbaye ñëw. maa ngi koy maa ngi fàttaliku. mu ñëw fekk ñu principal. mu fekk ñu principal. ba ñu ñëwee. ba ñu ñëwee. ñu waxtaan. ñu waxtaan. ba noppi. ba noppi. Babacar Mbaye ni ma. bàyyi Babacar Mbaye ni ma. ni ma neel sëriñ bi. ndax ngan nga ma daan def. ndax ngan nga ma daan def. dama koy def ba dama koy def ren. daa koy def ren. wala du ko def. wala du ma ko def. booba sëñ bi sëñ baa ngi tëdd hôpital. ma ñëw ba ci nopp sëriñ bi. ma ñëw ba ci nopp sëriñ bi. ma déy ko ko. ma déy ko ko. ñu ko Baye Babacar nee na. ñu ko Baye Babacar nee na. bésam ba. da koy def. wala da koy bàyyi. sëñ Malika ni ma. sëñ Malika ni ma. nee ko. nee ko. jamono xat na. xat na. te la yàlla xam doy na. Mm-hmm. nee ko jamono xat na te la yàlla xam doy na keroog bi ñu génnee ci biti bi ñu génnee ci biti ndeysaan Babacar Mbaye Baye Babacar Mbaye keroog ci hôpital dafa jooy jooy yu metti yéeme na jooy yoo xam ne jooy yoo xam ne ku ko gis danga naan kii lu ko dal mais li ci gën a yéeme li ci gën a yéeme. Babacar Mbaye dañuy sëñ Madické. Babacar Mbaye dañuy sëñ Madické. kon li ma la waroon a jox ci ngan gi. kon li ma waroon a joxe ci ngan gi. daa la ko koy jox. keroog. Euh, lam joxoon sëñ Madické. lam jox sëñ Madické. Euh, bi sëñ Madické nelawee. nelawee. nag wa nag wa ko jënd xoolal loolu. loolu jar naa sant yàlla. may sa kontaan nañu. yàlla na yàlla kontaan mën ngeen a jëm jël place toog. Omar bàyyi saa yu si jàllale kàddoom benn. Kajoor xam naa ci lu ñu orienté leen jox leen mhm. mhm. parce que ñoo may jëkk dem ñoo may jëkk joxe ñoo ma falaa leen di bàyyi mhm. loolu loolu rek man ñoo may jëkk ñoo may jëkk a joxe ca falaa leen di bàyyi su leen neexal dañuy toog lànk maanaam nañ leen dem ak leen woo téléphone ak di di karkar mais nag góor gi moom yàlla dimbali na ko ba sëriñ Madické defal na ko loo xam ne moom maanaam li mu bëgg kenn mënut a téye moom mooy bàyyi moo tax li mu bëgg kër si Madické kenn mënu koo xañ yàlla moom da koo liggéey moom mu ko ñàkk ba tey ji bu ñu wootee wan bu buñ ko mënul kenn du ko mën boo ñoo ne noonu sunu mbayal fa moom noonu yàlla séddi xam na nag moom xam na daanaka moom jël wax di man moom xam na moom xam na li li yéene xam nga ko li lay ñaanal sax maam taala fee ceeb wéet na di sa yëkkataal ñu am ñetti weer ñu waxtaan am lu ko wax moom la ko moom la ci yow jamono yooyu si nga demee réew man moom doon nga yàlla am na lu ma xam ci yow ndax man daan naa nekk moom maam en excédent ba ñu bokk benn ndax di leen. sëñ Mamadou ñaanal na ma taaj. macha allah waaw man sant na sant na yàlla bu baax ndax boo fekkee bis boo xam ne bañ ne la sa waay lañu sànqal kat ci bisu diine ndax am na ñuy war ci leneen. buñ la woo ci jotaay ji nag yëngu. dëgg la yàlla doo ko am de. man mii xaw ma ndax dinaa am déem déem. yàlla na ko yàlla may ñëpp ku fi ñëw yàlla na yàlla delloo ci jàmm te ñëpp am xew dañ fi ñaan yàlla nangu. baax na nag yow xam nga xam na. bëgg moom xam nga ni mën nga te ñu ngi la koy ñaan ñu jàll jëpp rek. incha allah. bu dee ñàkk na ñàkk am na ko tëddee ko ba day jooy rek. waaw ren dañuy jekk na jaadu na fa tabaarakallaa bu daan dem Kébémer du romb Thiénaba Kajoor bu wàññee ko waatee du jaar Thiénaba Kajoor fa lay jaar am fa ñetti fan soog a wàññee ko waat buñ daan woote tool ya lépp dañ koy teg ci loxoom. waaye fa tabaarakallaahu Baye Mor Diop wër dëkk ba kenn ku nekk mu yëgal la ko waaye ni mu meloon ci cene ba fa tabaarakallaahu tey jii ak njabootam noonu lañ mel sëñ Abdou Diop mii di seen taaw jàmbaar lool am pëstif am taxawaay lool noonu la mel sëriñ maam ngóor mii noonu la mel sëriñ Njaga mii fa tabaarakallaahu noonu la mel jël na doom tuddi ko maam Coro Seck kon loolu fa tabaarakallaahu tamit dara mënu ko ëpp doole fa tabaarakallaahu sëriñ Ousmane waaye Garas Diop mii noonu la mel fa ak sama waa ji bay am sama turandoo fa noonu la mel kon Baye Mor Diop la ko la ko ca ëppal doole gën ko caa amal solo mooy kaamil bi nga xam ne si bërki démb wax naa sàmm ñu wàccee ko kaamil yéen ci Baye Mor Diop loolu moo ci ëpp doole te yaakaar naa ne tiyaaba ja fa mu nekk dana koo fekk kon loolu rek laa ci doon sànni kontaan nañ bég nañ ñëw ngeen ñëw yàlla nañ seen fajog aajo asalaamaaleykum wa rahmatullah dootu ñaar ko ki ba gëdale mu noo ya daw Hey! yayi corose ndikaanum yayi corose ko fu amoon lëndëm yow def nga fale ñi jaaxle woon gi leen ba nuy saxoo naan la ilaha illa si biir ah ah di dalal bu baax te di leen di jël nuyoo bi di ko teg ci loxob doomu sëriñ ma dikke muy kilifa jataay bi di sëriñ Pape Seck Mourtada ñu fekk si fi nag ay rakkam muy sëriñ baay Dame Seck mi ñu àndal ak baay alfa waaye nag di nuyu mboolem ku fi toog rekk góor jigéen mag ndaw di nuyu ñu fi fekk ñépp di leen présenter délégation bi ñu àndal ñu ngi ànd ak sëriñ Baye Dame Seck ak sëriñ Modou Dieng ci góor ñi sëriñ ma ak sëriñ Mor Anta Mbuub ci jigéen ñi ñu ngi ànd ak soxna Fandiaye Seck soxna Faat Kéré ak soxna Issa Pouy ak soxna Bintu Diop ak bokki njëriñ yëpp ak jaal mbay leget ñun nag ak soxna nday gay ak soxna mbeen kan ñoom ak soxna ndumbeloo ak soxna fàtkeere ñun nag suñu xol dafa sedd suñu xol sedd na démb tey di doog a ñëw ndax tàgge boo gis dafa am jàppal jiw kenn ku ne xam na ni bis bi bisu sëriñ ma dikke la waaye bisu xaddara maam ahmadou ndaag la waaye bisu cana ba gépp la nag ndax boo ñëwee xool rek fi turandoo yi dugg rek xam ni ki jëf bu jëfee rek xam na ni mag ñi ñoo ko joxoñ ndax ñi mu ko tudde ñëpp foofi dem wala réewu seexu canabal amul kenn ku ci di walla réew seexu canaba ñun nag ba alfa sunu xol dafa sedd ndax fii sa papa moo la fi daaloon muy kees ak li wër kees waaye fépp fuñ la fi fekk siggal nga nu li tax nag ñuy wut doomi soxna mi ngi ci yow yal na la yàlla demal jàmm yal na la yàlla suturaal yal na la yàlla taxaw ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziare ñu ngi am kontaante ñu ngi am fierté di bis bi yàlla bu muy sa mujj gi bis sunu xol sedd na kuy ndax sëriñ ma dikkee lu mu def lu mu xam la lu mu def rek lu mu xam la su la nekkoon ci kees gii mu am neneen noomeel du la dël fii te bu la dëlee fii am na ci mag ñoo nga xam ne duñu la yaakaar ba di la topp kon jëf sekk ba nga xamee sa bopp ba jëf jëfin wi kontaan nañu sunu xol sedd na lii nuy joxe nag sunu asakay yéene rek la sunu asakay yéene rek la rahmatullahi taala wa barakaatu bañ julee ci yàlla julli ci yonante bi ñuy sant sëñ Madika Seck borom yàlla neel te xam ne lii lépp liggéeyam ban jógee ca sëñ Madika Seck ñi ngi sant Abdourahmane ñi ngi sant ñi ngi sant sëñ Mourtala Seck borom yàlla neel ñu ngi koy sant di ko ñaanal di ko gërëm di ko ñaanal fan gudd ak wér ak de di wax ne Baye Alpha moom ba mu jëlee bis wax dëgg yàlla tudde ko Baye Mor rek boobu la suñu xol sedd buy ndax Baye Alpha dafa jël baat bi delloo ko ci ndaali dafa jël bant bi rek delloo ko ci ndaa ndax maam mayeli sama maam taala moo ko joxaan wert ne ko bu la neexee man ngaa joxe wert kon tey bu ma bu ay alfa jëlee njaboot sa njabootu maam mayeli delloo ko ko kon baay alfa yow ñu ngi lay sant rek di la gërëm ñu ngi sant nag waa Thiénaba gépp bayiwuñ kenn góor ak jigéen maa nga ndaw nday sekk ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal Abdou Diom nag moom kàddoom rafet na maa allah maam góor seen kàddu rafet na ñu ngi leen sant leen ñaanal jërë ngeen jëf nga ci yokk rek incha allah. macha allah Serigne Mar Diop kàddu yi am na solo comme ni ko Serigne Mar Diop waxee rek macha allah comme comme ni ko sëñ Mar Diop waxee rek macha allah am na solo kon yéen a ko gisandoo noonu taalibe yaa ngi jóge fu nekk di ñëw ngir fekke si bis ba nga xamante ne moom la Baye Alpha Mamadou Seck di amal fii nii ci Thiès ci xamante ni moom lay amal fii nii ci promenade bu Thiès taalibe yi ñu ngi jóge fu nekk ngir ñëw fekke si li nga xamante ni moom moo di bis bi sëriñ Pape Motoda Seck Madické mi ngi ci yoon bi moom mooy amal conférence bi waaye sëriñ Ibrahima Seck Madické moom teew na fi dina fi amal waxtaan bu ama am comme ni ngeen ko gisee ci suba def nañ fi ay wàccee yu am solo ñaanal ci way dawlu ñi yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp si barki Seydouna Mohamed xaar rek euh, yaakaar naa ni euh, dañuy teg foofu suñu baaraam rek euh, soxna Fatou soxna Binta caw yaakaar naa ni dugg si biir jël ñi nga xamante ne bi dañuy jaare ak ki nga xam Pape Seck Mourtada yaakaar naa ne buy dugg ci si biir bërëb bi ñu mën ko gàtt la ko ak alhamdulilah ko defee ñu dugg si biir mën a jël mbokk léegi a bàyyi daal ma ngi ñuy teg seen xarit ci seen féete fa tabarakallah bu leen ñëwee fekk may bàyyi mu ñëw ci kanamu sëriñ bi ñu bi mu gaaw tuuti rek ndax temps ngi nag fas yéene découvrir ba su bàyyi alfa bii macha allah ñu déglu organisateurs yi ñu orienté leen bu ñu paree bàyyi saaka ci kaw mais ñi ànd ak ñoom ñu bàyyi organisateurs yi ñu orienté leen fi ñu war a toog ndeysaan ko xamoon maam Ahmadou Bamba ñag ak Canaba jotaay bii dana daw seeram borom bu gàmmu gaa ci takkusaan maam Bamba ak si gaañee riir bàyyi baara ngay jiitu laay jooy dal ñoom ñooy siyaara noonu ndeysaan xam ngeen bàyyi Ousseynou Gueye li ngeen xamoon ci tànk Seexu Canaba dañu koy rendre hommage njabootu Baye ngeen xam ne njabootu Baye Ousseynou Gueye ñëpp ànd nañ ñëw ñëw saa yoo gi noonu taxaw maa koy seen moom it di jàmbaar lool di gaynde lool Ousseynou Gueye bu mu ñun ñëpp xamoon nañ ko ci njàmbaar ak na ko ñàkk waaye nag yemale wuloon kenn ak seen médico sec kon Serigne Alfahim bokk yaa ngi lay ziyaara bu baax mel na ni daayira bi moom di samsul huda yaakaar naa ni kenn du la ko wax ñépp la xam téela nga téeleen kon daayira boobu ñu séq ko waa kër Njaga waa Ngule waa kër Mafay waa Bulfa ak Goyaar ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñoom ñëpp àndandoo nañu li ñu am su tuute ak su bare lépp yaa ko moom ak di déglu sa ndigal loo def loo nu ñu def loo ñu def ko waaye loo tere duñ ca teg suñuy tànk ba nga ñu koy tere kon daayira bi jigéen ñi ak góor ñi sopp gun la sopp yaakaar gun la yaakaar dañoo bëgg nga ñaanal leen yàlla lu ñu yéene ci yow yàlla na yàlla def ñu man ko lii nga xam ni moom laa téye nii daayira boobu ku am dërëm ku am juróom ku am fukk boole nañu ko lépp ñu def ko ci enveloppe bi soo demee sa ruq sa loo ca gis xamal ni daayira bi ñoo la ko jox ndax ñun ñëpp danoo jàng alkitmaanu lépp looy def tamuy yàllay kese da nga koy nëbb jox ko ko ko moom mu dem fam ko war a gise su ko gisee xam ni yàlla dong la luñ la jox lu la neex mën na caa ndax yéene nañ la ko te lépp nag yàllay kese la lii daayira bi moo la ko jox Ousseynou Gueye mi nga xam ne. Baye Ousseynou mi nga xam ne. ay doomam a ngi nii. ay a kii moo ci mag. kii moo ci mag. nga am loo leen jox ci bis bi. am loo leen jox ci bis bi. ñun ñëpp nag. ñun ñëpp nag. biñ ko déggee. biñ ko déggee. ñun ñëpp kontaan. ndax daan na wax sëriñ Madické. ndax daan na wax sëriñ Madické. su ma la gisee. su ma la gisee. dootuma lekk. dootuma lekk. dootuma naan. lépp loo sant. lépp loo sant. maa ngi ci. sëriñ Madické ni ko dee lekk ak a naan. baayam dong. baayam dong. laa gis ci taalibe yi aw fasam jur xamul góor la xamul jigéen la mu dem ba ndukkumaan mu woo sa way jur ni ko sama fas wa de am na doom yaa ko moom bàyyi Ousseynou Gueye moo def loolu sëriñ Malike ni ko lu mu doon mu ni ko damaa bàyyi doom ja génn nday jari ko mar xawuma lu mu doon lu mu doon daal yaa ko moom defe naa ni bàyyi mortaala ñang mii moom la joxoon faso yor na ko ba ñëpp gis ko kon Baye Ousseynou géey moom loo ko jox ci diini ji ñun ñii nga ko jox kon Baye Alpha yàlla na nga fi yàgg yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla defal la jàmm. Euh, Baye Saliou Cissé. Baye Saliou Cissé. at mi ngi ko ko joxee fii. at mi ngi ko ko joxee fii. ñëpp a ci kontaan. ndax jàmbaar la woon. ndax jàmbaar la woon. joo xam ne. mësta ges lu seex cee na ba bëgg. lu seex cee na ba bëgg. sëñ Madické bëgg sëriñ Madické bëgg ko. kenn mënu ko ceeman. kon moom it. noo ngi sant bu baax waaw eh, kii kat wax na ma ni ma. kon Birane wax na ni ma. daa bokk ci ñi nga xam daa bokk ci ñi nga xam ne. li nga jox li nga jox Baye Sunu moom nga ko jox. kon Kër Ndiaga saar gépp nga ko jox. ak Ngule ak Kër Mafay ak Bulfa ñëpp nga ko jox. lii nag njabootu Ousseynou Gueye ñoo ko boole moom teg ko ci enveloppe bi boo demee ca roq sa xam la ca ne nga baal ñu àq. bu ko defee Baye Alfayim sëriñ Laye mii. man mii la ko waxal waxal ko sëriñ daam sekk mii waaye waxal ko sëriñ ma dikke ndax ko xamoon baay jamañang ñoom ñaar ñoo bokk nday ak baay kon yaakaar naa ni te baay jama kenn ku nekk xam na ni mel ci sëriñ ma dikke bàyyi saaqa ñi ziyaara di ñaanal bu baax di nuyu Baye Serigne Omar Niang ak waa Kër Njaga Saar yëpp di nuyu Serigne Modou Jonn fa tabarakallahu di nuyu waa Kër Njaga Saar yëpp di nuyu waa Bulfo Baye Mbay Ñing sëriñ Bamba nekkal leen fi Pape Ali ak ñoom Madaroog ak Ablay nekkal leen fi ak suñu jigéen ñu baax ñi fa tabaarakallahu ñi ngi leen di ziyaare suñu yaay kaafa suñu yaay kaafa soxna kodd soxna maane ak soxna ba ak jigéen ñi nu àndal yépp di nuyu waangul la yépp sëriñ jaabaa nga ne sëriñ bàcce xule ngi nii mi nga xam ne bàyyi sàq lépp la jël teg ko ci loxoom mu nekk président daayira bi mu am taxawaay lool nungoo góorgóorlu lool ci daayira bi fu mu mi ngi woote kon bàcc yaakaar ji ñu am ba teg ko ci sa yal na yàlla mottali ko Serigne Modou jon kontaan nañ Sëñ Jaaba kontaan nañ barki dem ba léegi Birane mi ngi fi nekkal leen fi fa tabaarakallahu li ngeen war a def yëpp mu def moo kanaand sëñ Mbay Njaay fa tabaarakallahu di suñu xarit barki déem ba Sëriñ Njaay mi ngi fi nekkal leen fi seex ñi di suñu xarit nekk kenn ci ñun fa tabaarakallahu nekk Dakar waaye di ko am taxawaay seex ñi ngi lay ziyaara di ziyaara maam góor maam góor mais sama xarit la maam góor yàlla na yàlla taxaw la ci biir ak ci biti di nuyu waa kër baay Ousseynou Gueye ndax baay Ousseynou Gueye ak sëñ Madike kenn ku ne xam na ni ren bi ma ko defee rendre ñu bëri dañ may woo naa ma sëñ bi baay Ousseynou Gueye yàlla sëñ bi ni nga ñu ko fàttale dafa neex ci ñun ndax ni mu woon sëriñ Madické Baye Fall la woon bu daan gis sëriñ Madické du am sago waaye ba mu fi ba tey ak njabootam noonu lañ mel ay rakkam ñi ngi ni ay doomam ñi ngi ni muy sëriñ Salim ak asan fa tabaarakallahu ak njabootam yëpp Baye Saliou Cissé fa tabaarakallahu ren ji moomin mu bokk ci ñi rendre hommage at mu jot dañuy jël ci taalibe sëriñ Madické yi ñi nga xam ne kenn lan woon ci ñoom ñu leen ci fàttaliku di leen wàcceel kaamil di leen ci ñaanal loolu rek lañ ci jublu bañ xëyee ci suba mut mu sàmm wàcc na kaamil bi ñoom ñëpp mu tudd leen ñaanal leen nii ngeen ñëwee kontaan nañ ci bég nañ suñu xol sedd na yal na yàlla faj aajo yëpp bala ñoo ñaan su ko defee sëñ daam seek a ngi ni di suñu mag di suñu kilifa mën naa ñaan njoogu jaw fa tabaarakallaahu ñi ngi lay sant bu baax sëriñ daawda ñing di doomu baay ñing bërki démb rek la am tudd Dakar ni ma nañ ca ñaan bu baax bi ma xëyee suba mu woo ni ma doom ji yow laa ko tudde loolu lépp li ko waral mooy cofeel xam ni baayam sëriñ ma dikke noonu lañ meloon moog njaboot gi ba tey noonu lañ mel kon yàlla na yàlla mottali sëñ daam nga ñaan ku baax a ngi ñaan ku yiw a ngi ñaan ku nangoo mu Cheikh Mouhamadou Mourtada mooy ñaan nii soxlawu dara moom na tool yi sëñ Pape bi set rek ñu bari xamuñu ko ndax tool yi ku baax ay ñaan koo xam ne soxlawul daara mooy tooli sëñ paa bu mu booy rek moom loolu rek yitteem moom waaw ga ñu meew naaj kon su ko defee ginnaaw loolu soxna caba jàmbaari groupe bi yaay groupe bi ndey ci seex alpha jang koy joxoñ soxna caba kenn du ko fàtte kon ñu liir papier bi ana ki koy ana basir anamu na ñëw na ñëw nii ñëwal nii ana ana ana fooy bi ñëwul taxaw nii. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñëpp baax ndax lii may def moom moo ma ko def boole kook euh, équipe technique bi nga xamante ne bii ñoom ñoo yor conférence bi depuis sept ñu ma koy jox chaque année ma koy doxal fii yaakaar naa ni kon. man benn programme dong lay taxaw di yëkkati kàddu di ko wax muy programme muy conférence bi bu neen budul bii nit du ma fa gis ma yëkkati kàddu di fa wax kon maa ngi sant bu baax bàyyi Alpha bi nga xamante ne bii moom moo yëkkati cër boobu jox ma ko yëfu sëñ Madické nag dafa yaatu ku nekk da cee xaj waaw ñun ñëpp danoo bëgg sëñ ma Madické lool doon ay ndaw yàlla xiirtal ñu sëñ ma Madické ñu bëgg ko te dund ñoo moom sax lu yàgg kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla gën a dolli yërmande damay présenter programme rek ndaxte danoo am réunion technique bu ñu fi def démb ñuy présenter programme bi nan lay doxale ndax danoo nekk ci weeru koor te weeru koor dafa xat nit ñi dañuy déplacé waat di demaat seen i kër te duñ teel pare mën naa am déléga mën naa am ñoo ñu di dellu mën na noo tardé kon moo tax ñu bëggoon a tënk mbir yi képp koo xamante ni bii rôle bi nu ma jox nag laay wax képp koo xamante ni jox nan la kàddu ban yëkkati kàddu gi ni la moo ngi ci yow ak ku mën a doon temps bi la wax du jotee dinaa jóg récupérer micro bi joxaat ko keneen kon ñin koy jox nan bàyyi xel bu baax duñ jógee rek buñ continuer nan arrêté mu jeex loolu mooy li nga xamante ne bii moom lañ fi tënk jox ma ko pour ma doxal ko beneen bi mooy du sëñ Pape ñëwee ba nga xamante ni bii euh, paroles yi commencé na parole bi ci njëkk mooy parole lu marin bi ak parole lu parrain bi duñ ci jógee parole lu invité pré paralu invité d'honneur bi moo ci topp duñ fi pare autorité administrative bi nga xamante ni bi moo fi nekkal euh, dëkk bi moom dina yëkkati kàddu ku ci ñëw rek moom mooy kàddu gi moom sëñ xalifa dina xam kan lañ ko ciy jox ñu jox ko duñ ko pare ñu dem sëñ Pape Seck direct sëriñ Pape Seck bu sëñ Madické mu defal ñu conférence bala moo def conférence bàyyi Alpha nuyu ay ay délégation am jaajëfal ay nitam ñu jox sëñ Pape mu def conférence ñu defee conférence ba pare incha allah képp koo xamante ni bii xalifa bi wala ku mu yebal wala ku mu mën a doon ñu jox ko kàddu xalifa bi ñu ñaan ba déwén allah allahu bi loolu mooy programme bu ñu fi teg képp koo programme bii nag dañ ma koo jox pour ma doxal ko maa ngi ñaan képp koo xamante ni bi jox nan la kàddu temps bi ñu la wax wala heure bi ma jug taxaw ni la arrêteel bu ci teg dara ndaxte bëgguñu ñuy ñuy def leneen loo xamante ni bii digalul nu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yan solo ale ka mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah di dellu di leen jaajëfal yéen ànd ak euh, les télévisions de Mame Ahmadou Ndak Seck euh, comme leen ko waxee rek euh, ñu ngi taxaw fii ci conférence su Baye Serigne Alpha Mamadou Seck bi nga xamee ni moom lay def fii ci Thiès waxoon nañ leen ko ni leen marraine bi macha allah ci kër gi la bokk mooy madame Wade Ndeye bint Dieye di doom ci alaaji Papa Dieye mu Cheikhou Thiénaba alaaji Papa Dieye bu Mame Ahmadou Ndak waaye alaaji Papa Dieye bu Serigne Madika Seck borom yàlla nee na tudde la bis bi mu nekk turandoo wu rëy euh, nga ànd ak say mbok ànd ak say xarit ñëw ci li nga xamee ni moom mooy conférence bi euh, dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo wax ñu naka nga dunde bis bi ak noo ko waajee. waa asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyoo di ziar ñëpp macha allah waa bis bi moom contentement rek lañ ci am macha allah ku xam sa papa xam ko ci kër Cheikh Thiénaba macha allah. taan nañ daal te Baye Alpha moom wax dëgg yàlla ñu ak moom du tey démb la. macha allah waaw euh, naka nga ko waajee euh, ak say mbokk ak biñ la waxee ni la yow la ñu marraine bis bi ban impression la def ci yow. waa biñ ma ko waxee macha allah kontaan ma rek wax dëgg yàlla samay mbokk tamit macha allah boobu ba tey ñuy si kii sama mag la mooy sama taawu yaay kii sama mag la moom tamit samay frère samay sœur macha allah ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp wax dëgg yàlla kontaan rek. Alaaji Papa Dieye Euh, wax naa ko léegi ci présentation bi euh, bu Serigne Madické Seck borom yàlla nee na kenn mënu koo tudd te tuddoo Serigne Madické bu liggéeyee liggéey bu rëy yow nga nekk njabootam wala yéen ngeen nekk njabootam ba tey ñu ni njabootu Serigne Madické moo jëlaat delloowaat li nga xam ni waaw nee na magam moo koy tontul euh, delloowaat li nga xamee ni moom mooy cër bi mu delloo leen ko dund bi ak ni ngeen ko dundee rek ak yëg-yëg bi laa bëgg a waaw ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp nuyoo mbooloo mi sant suñuy ñaar waajur di sant euh, sëñ Pape Seck bu baax a baax a baax di ci teg Baye Alpha rakkam di kontaan ci ñoom bu baax a baax a baax di wax ne nag ñun lii bettuñu ci ñoom ndaxte sëñ Pape ak Baye Alpha ak seeni rak dañoo bëgg bëgg suñuy waajur ba ñu xam ko te ndey bi da lañ tuddee conférence bi di doomu alaaj Papa Dieye ku ne xam na ne kon du sens mérite la wax dëgg yàlla mu nekk nag lu ñu rafetlu nag lu ñu kontaan ci loolu ñun di ay bokkam di kontaan ci Baye Alpha bu baax a baax a baax ndaxte li mu cër bu rëy nag la ko jox mënoon na ni Ndeye Binta xale la mais xoolul ci xale bi dafa xool ci xëy na baax gi mu baax ak bëgg gi ko bëgg ñu tuddee ko ko bu xooloon ci âge bi danaan xale la wax dëgg yàlla ñuy kontaan ci moom lool nag di kontaan ci cër bi lool nag di ko rafetlu bu baax a baax bàyyi afa moom ñu ngi kontaan ci moom macha allah conférence bi yàlla nekk ay conférence yi conférence ci daraja Seydina Mouhamed ñu lay ziara xam naa bàyyi la ak Aliou Ndoye bu ko defee ñu jàllale leen ci sëriñ bi ngeen nuyonteeg moom saafonteeg moom ñu jox leen place ngeen toog bu defee ñu xaar li nga xam ne moom mooy conférence bi yéen a nga ànd ak euh, soxna Baye Alpha Mamadou Seck euh, moom tamit la ndax euh, buñ la tuddee bis nga ànd ak njabootu ki la ko tuddee loolu mooy relation bi dëgër na te relation bi yaatu na soo ma mayee tuuti rek ñaari baat ma jël ko ci moom euh, bu ko defee mu firndeel li ma wax soxna si madame Baye Alpha Mamadou ñu ngi lay ziar di la jaajëf. ñu ngi delloo ziar ñu ngi delloo ziar ah, ñaan eggale ci jàmm ak salaam yaa ngi ànd ak bi ban relation la relation bu ko waral ba àndandoo bi waaw damaa ñëw fekk koog Baye moom tamit mu bëgg ma torop macha allah moo tax damay ñaan ñu ba eggale rek incha allah. ñu bàyyi leen ngeen jàll ci biir mbokk yi kon loolu mooy. kon yéen ñi ànd ak ñun macha allah kon marraine baa ngi noonu ànd na ak ay mbokkam ànd na ak ay relation am ànd ak ay xaritam. ñëw liñ ko jox mu nekk cër boo xam ne nagu na ko ak fukki loxo ak juróom dem àgg rek bu ko defee ziar ci kanam ñu ñëw ak yéen li nga xam ne moom mooy xew fii euh, ci euh, place Mamadou Dia bu mairie bu Thiès conférence Baye Serigne Alpha Mamadou. comme niñ leen ko waxee léegi rek euh, ki nga xam ne moom mooy soxna Baye Alpha Mamadou moo sol lu bula loolu. Euh, ñëw sukk ci euh, kanamu kilifaam waaye ànd ak ki nga xam ni euh, moom mooy madame Wade ne Ndeye Binta Diop di marraine bi macha ak délégation bi mu àndal muy délégation bu ama am solo ay magam ak ay rakkam ay dëkkandoom ay xaritam bàyyiwul kenn ñooñu toog ci wetu kanamu Baye Alpha Mamadou Seck ñooñu ñooy marraine bis bi muy soxna. Euh, nday Binta Dieye euh, bu doom ci alaaji Papa Dieye mi nga xamee ni boo ko tuddee rek sa xel dafay dem ci Serigne Madické Seck euh, borom yàlla nee na mu nekk lu am am solo kon lii moo xew fii ci place Mamadou ja bu Thiès lii moo xew fii nga xamee ni macha allah yàgg nañ fee tantal Cheikhou Thiénaba lii moo xew fii nga xamee ni macha allah buñ nee Mamadou Dia Euh, histoire am dafay collé ak histoire u Cheikhou Thiénaba histoire u Serigne Ibrahima Seck mu nekk loo xam ne la am solo la nuyu nañ ba Alpha Mamadou ñu ngi dem ñu dalal leen bu ko defee rek ñu continuer programme bi déglu euh, animation déglu euh, ki nga xam ne taa ñool waaw kontaan rek sant yàlla di ñaan yàlla di ko fekkee at mu jot. nga ni kii la bàyyi ma dëkk Seck dénkoon ak njabootam. kon sa dénkaane ngay seet. waa moom laay seet si. macha allah fa sama doom la. macha allah ñu ngi sant bu ñu lay jaajëfal di la wax dalal jàmm. kontaan nañu jërëjëf. nuy bëggee ba aljana waa di ko bëggee waaw ba aljana moom la nuy bëggee ba aljana. am ngërëm na xam ca di jàmbar ju am ngërëm ci ñaari waajuram di kan coro ki ba aljana ndikan coro ala ni bege ba aljana la ilaha illallah ko bege waaw ba aljana aja loxoy ca kaw mboolem canaba canaba yi sigal na leen mboolem canaba canaba yi sigal na leen limaam bëggoon canaba kajoor bay jëf na ba aljana a ba aljana coro la nuy bëgge ba aljana la ilaha illallah ba aljana kon lu leer te wér naxulooñu su nas rasul bala doy loo ràññee kër gu mag gañoŋ armel ye woddu matal na Seex na Tijaani 40 xutbul wujuudi fa sayxi yàlla ko may may maam ya nee na 40 doy na Tijaani Seexuna Tijaani ku ko sopp defal nii ana taalube Seexuna Tijaani waxadinda kullun li xallin waaxidin من أن أطالب بكل مكان شيخ تجان قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد وال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

canabati wali saybi ahadun yab ri an annasuunahu